main euh, le lion sort de sa tanière waaye euh, pour continuer juste la présentation Abdou Diop il est euh, managing partenaire d'un cabinet international et président de la commission Afrique du patronat marocain Abdou Souley Diop c'est un plaisir de vous recevoir ñu ngi lay maa ngi leen di fay Mamadou vraiment kontaan naa ci invitation bi ci dalal bi di nuyu aussi téléspectatrices yi ak téléspectateurs u 7TV. Mm-hmm. di leen jaajëfal ci liggéey bi ngeen di def ndaxte. yombuloon ngeen ñëw fekk ci paysage médiatique bi chaîne yu bëri ngeen ñëw nag jël position bu am solo. Mhm. donc loolu ñu ngi leen ci féliciter di ci féliciter tous les journalistes ak toute l'équipe de 7TV. jërëjëf di la sant bu baax a baax je rappelle que vous êtes le président de la commission Afrique du patronat euh, marocain cette commission Afrique euh, boo ñu ko doon wax tuuti tey jii nii lan mooy rôle am ak ses missions. rôle xam nga Maroc dañ jàng. naka la ñuy def pour jëmale seen koom kanam. ñu mhm. gis ne euh, Afrique daanaka opportunité yi fi am bëri nañ lool xool nag naka la ñuy def ba seen entreprise yi euh, bénéficier ci opportunité yi naka la ñuy def ba pousse leen ñu dem wër ci continent bi am ay relation am ay opportunité pour mun justement renforcer économie marocaine bi donc mhm. looloo tax Euh, buur bi jël initiative euh, dem ay dëkku Afrique yu bëri dans le cadre de la coopération ba pare di yóbbaale chaque fois entreprise marocaine yi di leen pousse ñu xool naka la ñuy lëkkaloog yeneen entreprise u euh, continent bi mhm. pour jëmale koom kanam loolu lañ démarré donc biñ gisee ne mbir maa ngi sotti mi ngi am ay résultats ñu pousse patronat bi ne ko foog nga def nag benn genre commission Afrique boo xam ne ñoom ñooy dox diggante boobu. ñoom ñoo koy suivre ñoom ñooy yore lépp lu jëm ci relation entre Maroc ak. yeneen dëkk Afrique yi ci wàllu koom. Ah, bu ñu taxawee ci Sénégal relation yooyu noonu diggante euh, ni nga ko waxee Maroc ak Afrique mais au Sénégal précisément on a vu que les entreprises marocaines sont sont bien présentes euh, lu jëm ci wàllum euh, banque finance assurance le cite souvent tey jii ni lëkkaloo boobee naka nga ko gisee la Sénégal souvent on a l'habitude de dire que ñun xëy na pare wuñu pour trop pour loolu mais ndax ñu ngi jàng ci loolee pour mën a développer li nga xam ne mooy secteur yu mel noonu. yaakaar naa ne xam nga mm, lëkkaloo diggante Maroc ak Sénégal lu yàgg la. Mm-hmm. gis nañ. ci euh, at yu njëkk yi ci mbirum koom caravane yi di jóge Maroc di ñëw ba ñu bëri jóge Fès ñëw installé Saint-Louis kooku euh, mën na lu ëpp ñaar téeméeri at mhm. waaye après ci période coloniale bi mbir mi dafa wàññeeku depuis quelques années nag ci initiative bi ñu jël ci renforcement de relation bi gis nañ ne comme euh, baa ngi yokku déjà ak tali biñ euh, teg diggante Maroc ak Sénégal donc ñi ngi gis produit marocains yi di ñëw Sénégal ñi ngi gis aussi de plus en plus mangue sénégalaise le miel ak yooyu di dem Maroc donc déjà ci yoon boobu mhm. koom yokk na après nag mu am yeneen domaines yoo xam ne de coopération fu entreprise marocaine yi investir Sénégal waaw ci service yi lañ commencé muy banque yeeg mhm. numérique beeg yooyu après mu yokk nag ci industrie parce que industrie aussi ñu ngi koy gis tey am na entreprise marocaine yuy investir euh, euh, muy Sandiara di Diamniadio di aussi euh, côté Saint-Louis ci différents domaines donc fànn yooyu yëpp mi ngi permettre Sénégal développer industrie mm-hmm. donc loolu lu am solo la et léegi ñi ngi jëm ci ñetteeli phase bi mooy xool naka la ñuy fexe ba diggante Maroc ak Sénégal fépp fànn boo xam ne ci wàllum industrie seen Maroc euh, am na lum jéego yu mu fa dox naka la ñuy amee complementarité Sénégal pour mm-hmm. aussi développer industrie Sénégal par exemple ci wàllu tey ci wàllum engrais xam nga mm-hmm. wàllum engrais Maroc dox na ci ay jéego yu bëri te ba tey ñoom ñooy numéro un daanaka d'ailleurs ren su fekkee ne campagne agricole bi ci dëkku Afrique yu bëri yàquwul. Mm-hmm. dañ ci war a sant Maroc parce que ñoom ñoo fournir engrais yi bi Ukraine ak Russie tëjoo. Mm-hmm. donc ci wàllu boobu par exemple Maroc am na euh, phosphate mooy matière première bi Sénégal am na gaz am na aussi phosphate euh, ñi ngi xool naka la ñuy def ba ci fànn boobu ñu am coopération ba Sénégal mun développer wàllu engrais bi donc. am na fànn yu bëri yoo xam ne mbay mi sax récemment bi Sénégal amee problème ci oignon bi Maroc daf ñu daf ñu daf ñu dimbali ci lu bëri bëri. waaw bi Sénégal amee problème ci oignon bi xam nga Maroc ñoom aussi euh, ak augmentation des prix dañ tëjoon seen marché ne mhm. oignon produit de première nécessité yëpp yi ñuy defar Maroc warul génn dañ koy tere exportation mhm. parce que bugguñu am manquement ñeneen ñi di ko jënd seen marché local am manquement mhm. donc ñu décider tëj bi Sénégal nag amee problème oignon prix yu yokku mm-hmm. comme pays frère la donc euh, autorité sénégalaise yi laaj Maroc donc ñu dox ci dox yu am solo ba Maroc accepté Euh, libérer benn parti production bi pour mun. alimenter marché sénégalais vous êtes un sénégalais boo xam ne euh, yàgg nga loolu Maroc xam nga leen pour reprendre les termes du du chef de l'État vous êtes le plus marocain des sénégalais son homologue le roi Mohamed VI ne ko non je vous rectifie c'est le plus euh, sénégalais des des juste pour dire que ces pays ñoo lay xëccoo tey ji fu ma bëgg a mooy euh, secteur privé Sénégal jafe-jafe yi mu am comparé ak bu Maroc parce que gis nañu bu Maroc seen taxawaay quand il y par exemple Covid 19 bi gis nañu que ne dañoo génne xaalis bu am solo teg ko sur la table tey ji le Sénégal. je parle même pas de cette contribution volontaire mais même les marchés yi nga xam ne xëy na war nañ ko mën a attan sax am na ay problème à leur niveau euh, lan la réellement ci sa gis-gis euh, on n'a pas assez de champions nationaux wala seen lëkkaloo moom moo des que euh, qu'est-ce qui nous manque réellement non xam nga sooy seet mbirum secteur privé sénégalais lu foog nga dellu ci gannaaw mhm. ci histoire touti ak culture sénégalaise mi nga xam ne ci ay at yu njëkk yi lu ñu doon gën a joxal importance mooy euh, jàng ak diplôme. Mhm. c'est-à-dire que daanaka ñi nga xam ne dañ nekkoon entrepreneur wala nekk ci commerce bi ay baana baana ak tur yooyu lañ leen doon jox daanaka dañ leen doon xeeb donc culture d'entreprise bi développé wul trop Sénégal. Mhm. soo ci yokkee après modèle de développement bi njël bi nga xam ne euh, dañ poussé. croissance bi di euh, investissement public di diriger croissance bi day tax euh, l'investissement privé du mun law ci dëkk bi donc am na euh, modèle yooyu créé ba nga xam ne da ngay favoriser secteur privé mu meññ mhm. favoriser aussi créer champion nationaux yoo xam ne dinañ mun àttan développement wu dëkk bi mhm. loolu la Maroc def nag d'abord dañ am culture d'entrepreneur d' entrepreneuriat. entrepreneur yooyu nag moo am ñu ci état bi tànn décider ne suñ buggee seen économie euh, jëm kanam foog ñu am ay champion yoo xam ne non seulement dinañ mun gunge état bi ci seen ay projet mais aussi dinañ mun développer à l' international. Mm-hmm. politique des champions boobu nag moo jur. tey entreprise marocaine yi nga xam ne ñu ngi à l'international ñi ngi ñëw développé donc tey suñ buggee vraiment développer secteur privé foog ñu pousser initiative euh, privée c'est-à-dire que euh, teg ay politique yoo xam ne dina tax secteur privé mun ci investir pousser secteur privé boobu notamment ñi nga xam ne jël nañu risque parce que aussi il faut pas que secteur privé bi yaakaar ne dañu war a nekk rek rentier di xaar marché état yi pour mm-hmm. avancer il faut que aussi nit ñi jël risque am nañ ay entrepreneurs yoo xam ne Sénégal jël nañu risque investir ci ay domaines risquer seen xaalis di avancer. ñooñu même c'était réuni à un avec le club des investisseurs mais gis nañu que ne ni ñu ko xaaree woon demeewul noonu trop. mais ñoom dañ leen war a jàppale. dañ ci war a tànn ñoo xam ne mun nañ considérer ne demain ñooy doon champion yi. Mhm. mais foog ñu nangu suñ biir ne bépp domaine am na koo xam ne. moo ci gën a màcc sa morom te kooku suñ ko jàppalee mu avancé mhm. mu seet naka lay jàppalee ñi si des pour créer écosystème ànd ak ñoom boot leen ñu avancé comme ça secteur privé bi muy champion bi ñu créer ay yeneen PME ci gannaaw bootaale leen développé économie ak secteur euh, yooyu. donc loolu maa ngi koy wax bi ñuy euh, door euh, yaa bind bi la téere le Sénégal à portée de main le lion sort de sa tanière nga war ko présenter public bi vendredi incha allah dans deux jours téere bi lan lañ ci mën a comprendre lan moo ko wund ak lan nga ci développé parce que gis naa ne un peu vous avez parlé de politique mais également d'économie ak Sénégal situation yi nga xam ne dund na ko dernièrement ci wàllum politique. politique damay wax ne Sénégal su tollee ci yenn. situation yi foog ku ci nekk seet naka ngay sottee sa xalaat surtout ñi nga xam ne peut-être ñi ngi yëngatu ci yenn domaines yi seet naka la ñuy indee seen contribution. Mhm. pour ñu boole suñuy xalaat jëmale réew mi kanam. loolu laa defoon 2012 bi ma njëkkee bind ci économie Sénégal boobu sans projet point Sénégal émergent la euh, teg ko ci taal bi pour que politiciens yi économiciens économie ci utiliser ko pour tabax ci seen programme ren aussi mhm. dañ nekk ci situation boo xam ne Sénégal mi ngi liñ naan à la croisée des chemins dañ nekk euh, ci benn phase développement boo xam ne foog ñëpp càpp ci pour pousse ko mu décoller une bonne fois moo tax an Sénégal à portée de main mhm. développement bi soreetul maanaam mën nañ ci egg mën nañ ci yegg avec un peu d'effort mais foog ñëpp jàpp ci. foog ñëpp jàpp ci ñu nangu képp ki nga xam ne mun na ci apporter solution apporter ay idées teg ko ci taal bi comme ça ñu xool Sénégal biñ bugg biñ bugg ëllëg suñ doom yi suñ sët yi màggee fi. jàngee fi tekki fi Sénégal boobu ñu d'accord ci ban Sénégal lañ bugg ak naka lañ ko bugg tabaxee. donc loolu mooy. base bi. d'accord c'est-à-dire que ñuy ñëwee contribuer dama xam ne am naa chance euh, trente ans ngi nii fanweeri at ngi nii may liggéey ci développement muy marok marok mun naa ne euh, phase de développement bi yëpp projet yi ci ëpp solo liggéey naa ci walla jiite naa ko. Euh, muy seen plan de développement plan émergence plan agricole plan industriel euh, même plan automobile donc am na jéego yu bëri yu ci def mhm. aussi dëkk Afrique yu bëri am na fànn yoo xam ne jàppale naa ci ay dëkk ci ay plan de développement ma ne nag Sénégal bi nga xam ne d'ailleurs sax même Sénégal am na projet yoo xam ne liggéey naa ci ni Sénégal euh, euh, expérience boobu yëpp ci benn démarche structurée démarche consultant Euh, xool naka laay defee benn diagnostic d'abord diagnostic sur les douze dernières années. Mm -hmm. sans concession ah ndaxte. yaa ngi koy wax exemple de parti pris qui vise précisément à effectuer un diagnostic absolument objectif de la situation du Sénégal en deux mille vingt waaw parce que xam nga. deux mille vingt trois c'était une année assez compliquée pour le pour le pays euh, ci euh, wàllum société politique ak économie yëpp. ay jafe-jafe yu métti ne. waaw mais diagnostic bi maa ngi ko jëlee plus de douze ans. Mhm. di ñëw donc diagnostic bi parce que sooy def. diagnostic bi foog nga xool fan lañ jógee même am na yenn fànn yi indépendance laa ko jëlee di ñëw foog nga am mhm. foo ko jëlee. donc euh, et aussi foog nga objectif. c'est-à-dire que sooy proposer dara. foog nga nangu identifier lan lañ def loo xam ne jéego yu am solo. Mhm. lañ ci def lan lañ def ci lu baax te am na lu bëri. loo xam ne lu baax lañ def gis nañ Sénégal naka la évoluer ces dernières années nga xool aussi fan ci yenn fànn la liñ liggéey mëtul fan la sooxee fan la sooxee léegi nag soo jógee ci loolu nga mun proposer loo xam ne mun nañ ci tabax mm-hmm. parce que souvent Sénégal dañuy def erreur parce que dañ naan soit fii ngay far wala fële soit nga nekk farak pouvoir bi donc lépp lu ñu def baax na amul critique amul dara. Mhm. wala nga nekk ci opposition. lu ñu def baaxul lu ñu def baaxul. loolu c'est le fort des hommes politiques. waaw mais après xam nga soo defee loolu kër soo koy tabax bugg tabax gratte-ciel soo ñëwee fekk ñu tabax cinq étages. Mhm. soo ñëwee la li ñu defoon lépp baaxul nga ñëw euh, raser ko bugg tabaxaat. keneen ñëw def même chose du yegg mukk kër donc da ñëw gis cinq étages yi di ñu tabax xool lan moo ci baax mm-hmm. nga conserver ko li nga xam ne mën nga ci modifier nga modifier ko mën nga yokk ci leneen comme ça mu jëm kanam donc c'est important. donc c'est un observateur. qui a qui a, qui euh, ci euh, diagnostic bi nga def euh, maanaam parce que nekkoo Sénégal lu bëri yaa ngi bitim réew da nekk am un regard éloigné de la chose wala malgré distance bi la sépare ak réew mi yaa ngi doon informé wu di xool mais également di consulter certaines personnes yoo xam ne mën nañ la jox la la bonne information. non maa ngi bitim réew mais maa ngi Sénégal parce que maa mm-hmm. maa ngi d'ailleurs. Euh, liggéey naa ci ay stratégie yu bëri muy stratégie euh, économie sociale et solidaire muy développe stratégie de développement portuaire donc Sénégal liggéey naa fi mhm. ci fi xew ba pare mhm. bu leen fàtte ne daanaka quatre-vingt-dix pour cent entreprise marocaine ñi nekk Sénégal euh, man maa leen accompagner pour ñu ñëw fii man maa leen di accompagner seen développement donc économie sénégalaise dam ko dam ko xam mokkal ko mhm. donc donc moo tax ma ne diagnostic la boo xam ne c'est extrêmement objectif parce que c'est amul parti pris xam du faruma fii wala fële pour décider ne loolu sax la ñu soxla en fait koo xam ne voilà li mu gëm li mu gis moom moom la mu lay wax donc moo tax may indi contribution ne mhm. et en plus xam nga 30 ans d'expertise quand même euh, diagnostic ak surtout joxe stratégie wala apporter plan d'action sama liggéey la donc mhm. xam naa euh, naka nga koy defee ak yan règle nga war a respecter donc moo tax biñ bi ma jàngee sur sur la durée donc évolution Sénégal décider ne voilà donc diagnostic bi dañ koy teg ci différents fànn après ay choix la. Mhm. mais sama choix mooy am na fànno économique boo xam ne dafa am solo mais économique foog nga boole kook social. Mhm. donc côté social bi mooy deuxième côté bi. troisième côté bi mooy capital humain parce que lépp loo mun tabax tant que amoon nit ñi koy tabax. munoo avancé éducation lu am solo la. est-ce qu'on a assez investi sur le capital humain. Euh, on a fait beaucoup d'efforts mais c'est pas suffisant doyul. Mhm. doyul et et aussi quelquefois am na choix yu ñu jël. yoo xam ne euh, du choix yi nga xam ne. cest à euh, le le tout enseignement supérieur am na dëkk yoo xam ne. ils, se sont rendu compte que enseignement supérieur bi yëpp du solo parce que da ngay créer diplômé yoo xam ne après duñu am liggéey dañuy décaler donc formation professionnelle lu am solo la mhm. ba pare aussi foog nga adapter sa enseignement ak sa stratégie de développement. mais ah, loolu dañ koy dénoncer. il y a pas souvent l'homme qu'il faut à la place qu'il faut tout à fait capital humain. vraiment lu am solo la. ma yokk ci aussi développement durable parce am changement climatique yi ay menaces la mais am na ay mm-hmm. opportunités donc foog nga boole ko ci sa analyse ak dernier point bi nga xam ne moo ëpp solo parce que moom moo boot lépp mooy gouvernance mm-hmm. mooy ni ngay doxalee gestion de la chose publique diagnostic ci fànn yooyu ba pare indi ay propositions. mais avant les propositions si vous avez écouté euh, les critiques maanaam ñi nga xam ne jàpp nañu ne tey ci wàllum gouvernance Sénégal euh, sooxe na a def ci wàllum euh, reddition ak yu mel noonu suivi surtout évaluation ak yi ñu teg en place yooyu aussi souvent ay mbir la yoo xam ne jàpp nañu ne moo plombé fii yëf yi ba mënuñu dépasser fi ñu nekk. waaw xam gouvernance publique reddition des comptes am ñoo ànd c'est-à-dire que da ngay tàmbalee choix de choix de personnes foog mu transparent donc mm -hmm. c'est mhm. pour ça que même dans l'ouvrage di wax waxi sur sur les hautes fonctions des choses yi nga xam ne ça a marché ailleurs mooy appel à candidature pour choisir ouais. les, les, les bonnes personnes mm -hmm. parce mhm. que à un moment faut que dépasser les euh, les simples appartenances politiques nomination faut... politique yi mooy problème bu bëri non nomination politique sax ci fenn si mënta ñàkk voilà mais am na foo base de compétence. il faut pas que la, la domination politique il faut effectivement fo mu démarrer foofu après su su su avancer foofu mu nga jaar ci effectivement transparence dans la gestion de la chose publique mm -hmm. continuer ci reddition des comptes muy accountability nga xam ne euh, képp ku yore dara à un moment foog nga évaluer ko xool euh, yëf yi nga ko fan la ci def lan la ci toll ak lu des lan lan nga ko sant ak mm-hmm. lan yan objectif nga ko jox ak par rapport ak objectif yooyu en tenant compte des moyens yi nga ko jox lan la ci def. Mhm. donc loolu lu am solo la. et et et gis nañ ko sur l' évaluation des politiques publiques euh, tey am na dëkk yoo xam ne def nañ fa jéego yu yu yu mag bay joxe résultat et am na dëkk yoo xam ne maa ngi ciy liggéey lu liggéey bu am solo euh, aussi donc. lu lu am importance la dans la gestion de la chose publique. Ah, mais Sénégal li euh, muy euh, doxalee koomam économie am ak fi mu bëgg a jëm ndax plan bi ñu adopté euh, pour doxal ko baax na ci Sénégal méngoo na ak moom souvent dañ koy critiquer jàpp ne c'est un plan importé qui ne correspond pas à nos réalités le président Sall il dit non parce qu'il pense que aussi que lépp loo xam ne xëy na baax na pour bitim réew da infrastructure yoo xam ne de grande qualité la d ko def Sénégal mais am jàpp ne am na lu xam ne moo war a jiitu loolu. Sénégal émergent. nañ nañ accepter def na jëlee na Sénégal fu sori indi ko foo xam ne tey mun nañ ne suñ ne tey Sénégal est à portée de main c'était pas le cas il y a. 12 ans 12 ans soo xoolee téere bi ma bind il y a ans ak téere bi ma bind tey doon benn. Mhm. il y a 12 ans dañ nañ tabaxaat dëkk bi parce que fi ñu toll vraiment on ne dos au mur. donc dos au mur ba tey ñu naan à portée de main donc donc am na jéego yu mag yuñ def. Mhm. muy jéego. ci croissance bi parce que pendant douze ans yi pendant douze ans nga maintenir plus de six pour cent de taux de croissance musuñu ko am dans l'histoire mais cette croissance est-ce qu'elle profite aux <laughs> euh, maa ngi ciy ñëw xam euh, donc am na ñetti fànn yoo xam ne foog ñu reconnaître les progrès deuxième fànn bi nga xam ne am na ay progrès yu bëri mooy sur le plan de l'inclusion sociale mm -hmm. inclusion sociale am na jéego yu bëri yoo xam ne Sénégal def na ko ci ak yi yëpp d'abord ci euh, assurance euh, caisse euh, maladie universelle ensuite ci bourse de solidarité donc vraiment am na nañ ensuite troisième élément boo xam ne def nañ ci jéego yu bëri muy infrastructure développement des infrastructures mm-hmm. donc développement des infrastructures vraiment am nañ avancé yu rëy muy infrastructure économique yi ay aéroport port ak yooyu mais aussi infrastructure de désenclavement yi xam les routes année yi ba surtout monde rural amul euh, musuñ amul période boo xam ne mus nañ ci investir autant ci développement des infrastructures en dehors de Dakar donc loolu ay jéego yu ëpp la maintenant comme je dis euh, il faut être objectif am na yoo xam ne euh, peut-être yegguñ fi ñu bëggoon yegg wala plan Sénégal émergent première chose bi mooy suñ gisee en fait euh, li ma naan Euh, lu bëri ci croissance bi dañ ko exporté parce que croissance bi lan moo ko euh, indi lu ci bëri investissement public bi la. Mm-hmm. or investissement public lan la da ngay ay machines importer ay euh, matériaux yoo xam ne Sénégal construire ko mm-hmm. donc lépp bitim réew la jëm donc en fait lu ci bëri créer richesse pour le le le privé sénégalais. Mm-hmm. et c'est pour ça que ci recommandation yi. fànnu économie bi ci ëpp importance mooy politique économique boo xam ne day créer richesse Sénégal day développer secteur privé Sénégal day créer champion Sénégal day développer des richesses et kooku c'est à dire que il faut que dans la politique économique ñu équilibrer at diggante investissement public ak privé mm-hmm. pour que justement croissance bi bénéficier population sénégalaise ba pare yokk emploi bi ñuy créer ñu bañ a exporter croissance. Mhm. dans cet ouvrage j'ai vu que vous avez beaucoup parlé d'agriculture au Sénégal jàpp ne xëy na euh, luñ loo doon mbir la boo xam ne bu ñu sukkandikoo dinañ dépassé fi ñu nekk comme comme pays yoo xam ne Afrique Afrique du Sud mën naa ko citer foofu les agriculteurs ñooy li nga xam ne ñoom ñoo yor euh, daanaka richesse bi au Sénégal l'agriculteur le paysan ba tey euh, ci li mu nekkoon il il il prend du temps pour ana jarul ñu dem ba Afrique du Sud Maroc bii ñu nekk. Mhm. Maroc amuñ ndox. Mhm. ñu bëri xamuñ ko amuñ ndox ndoxu naan sax ñi ñii seet xam nañ ne oh, stress hydrique lañ nekk ndoxu naan ñi ngi def kanaal pour transporter ndox de de de de du sud vers le nord. parce que dañu am problème bu ndox ñi ngi def ay solution dessalement pour jël ndoxu géej dindi xorom bi pour mun ci naan parce que dañu am problème bu ndox te xoolal agriculture Maroc li na mhm. plan Maroc vert plan Maroc vert bi ñu tëral moo tax tey Maroc toll na ba benn moment dañ produire ba xamatu ñoon fu ñuy euh, sotti euh, production bi. comment parce que dañ def stratégie stratégie bu leer avec ay piliers piliers yi dañ bëri. Mm-hmm. Euh, da nga am premier pilier mooy agriculture intensive agriculture xam nga Sénégal suñu agriculture. li ci ëpp agriculture de subsistance lañ nit ñi dañ am tool bu ndaw di béy pour pour pour dund mais foog ñu passer benn stade ak ndox bi ñu am ak possibilité mm, irrigation a les terres on a l'eau il faut il faut ñu passer fànn boobu foog ñu choisir les trucs tey 75 pour cent de notre production agricole juróomi produit la mm. il faut que ñu faire évoluer l'agriculture sénégalaise d'abord euh, ko mais en même temps il faut que ñu accompagner agriculture petite agriculture bi parce que ñu ko bàyyi ci la bokk. Mm-hmm. parce que c'est c'est aussi filet social. nu ñuy accompagner loolu ay te tey am na modèle yoo xam ne ça bien marché model agrégation da ngay jël euh, ay agriculteurs yu am un hectare nga boole leen agrégé leen ak benn euh, acteur ci digg bi boo xam ne moom mooy collecté ci ñoom transformé. Mm-hmm. ça leur donne plus de valeur ajoutée ça leur donne même ñoom mën nga leen regrouper en coopérative ñu liggéey avancé. Mm-hmm. beneen élément bu am solo. tey suñuy seet production Sénégal on utilise cinq fois moins d'engrais que dëkk yu bëri ci monde bi te pourtant Sénégal am na phosphate léegi am na gaz. bay euh, la base pour engrais foog ñu avancer ci production d'engrais pour mun permettre. mettre à disposition des agriculteurs. et loolu yëpp jël nga ko en compte ba gis un Sénégal meilleur à portée de main. Euh, tout à fait mm. tey agriculture sénégalaise. dafa war a nekk pilier de développement non seulement agriculture mais ak transformation euh, agricole lu on est beaucoup en retard ah ci wàllum euh, euh, ko mën a tuddee sax industrialisation foofu aussi c'est un parce que même ma ma ma daaneel ci agriculture bi même am na action yu bëri yu ñu def ci subvention de tracteurs ak yooyu mais c'est pas forcément la solution mun nga soutenir agriculteurs yi. Mhm. sans forcément di leen. jox di jënd tracteur di leen jox. naka leen mën a soutenir sans faire ça. mun nga leen soutenir dans un programme de formation dans deux ouais, à ay structures d'irrigation mm -hmm. euh, qui sont collectives trois mun nga ñëw au lieu de donner directement de faire des subventions sur la base d'un certain nombre de de de critères yoo xam ne ñoo lay permettre nga jox subvention à la bonne personne en plus euh, euh, beneen kii bu am solo il faut que nga am genre incubateur boo xam ne day def recherche développement ba pare disséminer ko ci agriculteurs yi. Mhm. ñu donc il faut que nga accompagner leen dans une stratégie. ah c'est de temps il faut qu'on parle aussi de la situation politique parce que yaa ngi wax 2012 euh, bindoon nga téere mais yamoo ci je pense que vous étiez aussi des combats contre le troisième euh, mandat euh, de Abdoulaye Wade bokkoon nga ci yëfu M23 yu bëree bëri tey au Sénégal situation boobu noonu craindre ko parce que c'est derrière nous le président que du lu ñu war a lijjanti avant ñuy xalaat Sénégal bu bu bu gën a gën a baax ëllëg. Euh, fànn foofu lu mu ci dugg parce que euh, man d'ailleurs maa ngi koy wax tamit ci ñi partisan de séparation de pouvoirs laa bokk. Mm-hmm. xam nga justice day def liggéeyam. Euh, muy ñi dox ci wàllu koom wala ñiy dox ci wàllu politique dañ ci war sori. Mm-hmm. suñ bëggee. Sénégal avancé foog mu am séparation des pouvoirs bu leer mm-hmm. donc ba pare ñu am confiance en la justice kooku c'est très important foog ñu euh, liggéey mm-hmm. donc aujourd'hui man solo man li ëpp solo mooy ban Sénégal lañ bëgg pour suñ doom yi ak suñ sët yi ëllëg parce que xam nga oui ñi ngi jëm ci ay échéances cent quatre-vingt-dix candidats ku nekk <laughs> c'est bien beau mais ban Sénégal lañ bëggul mhm. c'est pas question de Massamba wala Mademba Massamba Mademba Abdou wala euh, Mamadou Awa on n'est pas important c'est le Sénégal mhm. qui est important c'est le Sénégal qui est important mhm. donc ban xam nga 2012 li tax justement tey ñu jógee ci dëkk boo xam ne ñi ngi woon à terre dos au mur yegg foo xam ne tey ñi ngi naan à portée de main c'est que am na ay années avant 2012 Sénégalais yëpp dañ toog ne société bii lañ bëgg dañ koy fàtte assise nationale. Mhm. génne téere ne voilà. ñun Sénégal bii lañ bëgg pour ëllëg. Mhm. ba pare candidat yëpp ne ñun. tënku ci ci la ñuy tënku. Mhm. te lu bëri ci yoonu yokkute président Macky Sall ak plan Sénégal émergent daf ci tënku. donc tey li am solo mooy ëllëg ban Sénégal lañ bëgg. naka la ñuy ci ak yi pour cette ban société sénégalaise et je pense que ci loolu. la war a jublu ci loolu la sénégalais yi war a tëj waaye Masamba la wala Mademba la loolu Sénégal weesu na euh, la personne de A B ou C. en une minute euh, ce livre il est destiné à qui mais aussi nga ñëw ci cérémonie bi nga bëgg amal vendredi par rapport ak liñ ciy xaar. ce livre ni mu ko waxee rek man sama contribution la pour. ma tout Sénégalais devrait le lire. ce Sénégal que nous voulons bu nekk mun na ci gis boppam. parce que mhm. maa ngi ciy wax waxi éducation. maa ngi ciy wax waxi santé. je l'ai parcouru mais gis naa ci c'est important il mhm. faut que vraiment le euh, tout ce qui est secteur social soit accessible à tous les Sénégalais donc ci la bokk gouvernance bi ci la bokk aussi le civisme parce que ne l'oublions pas. un état se construit suñu gisee pays Amérique du Sud discipline ak civisme lañ ko construire mm. donc loolu aussi lu am solo la donc sénégalais bu nekk mun na ci gis boppam mun na ko liir te aussi xam nga bon xam naa ne sama mbokk njaayee ni moom <laughs> su su livre bi euh, bëree ay page bon trois cent pages la donc am na benn résumé de soixante quinze pages boo xam ne boo xam ne aussi euh, euh, c'est disponible donc naa ko disponible donc vendredi l'harmattan à 17h donc présenté au public incha allah jërëjëf monsieur Diop ñu ngi sant bu baax a baax j'espère aussi que candidat bëri nañ ko lire parce que au moins. il faut leur faire des invitations hein, parce que je vais distribuer à tous les candidats et à toutes les équipes de candidats. Mhm. parce que c'est ma contribution à ce Sénégal que nous voulons. une contribution euh, qu'on ne doit pas négliger. tout bu baax Abdou Diop nekkoon sunu gan managing partner d'un cabinet international et président de la commission Afrique du patronat marocain nekk aussi écrivain sa contribution pour un Sénégal euh, meilleur ñu koy sant bu baax a baax dig daje suba ak jàmm incha allah 19h30 jaa